sëñ Babacar bi Cheikh Al Hadj Malick faatoo mag ñi bi at mi dellu ñu ne dañuy dellu si dundalaat guddi googa mu wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ba mu déggee ni toqam ni guddi gi Cheikh Al Hadj Malick faatoo woon mag ñi daje ne ko pour màggal ko def ni inna lillahi وإنا إليه راجعون دافا بيمو ديغي شيخ الحاج مالي ني فاتو نا با ات مي دلوتي ني ني دانيو دوندال غودي غوغا بور ماغال كو الحاج مالي بيمو ني توك سي نوب انا لله وانا اليه راجعون عزمتم على تعظيم الليلة انتقل نهرها شهر السيد المرحوم الحاج مالك آخر هذا الشهر من دار من دار ترابية إلى دار نورانية وذلكم يؤدي تطرق ألسنة الأجنبيين إليه بلن كو دفيرك غاني جامكو بلن كان ذلك قبيح جدا لولو نياونا لول بلن أمل إياكم ثم إياكم ما يتنكو لن كو دف بلن مك أن تحدث عنده ما يكرهنا ما يكون غريبا ngeen def ci moom loo xam ne dina tumuranke fi lxaabiri walbaadi fii ci saxaaba yi kenn defaluñ ko woon du ñu ñëw mukk xam nga juddug rasulillahi la ñuy màggal waaye guddug faatu yonent bi nag kenn màggalu ko taabiyoon yi ko taabi ak taabiyoon yi defuñu ko guddi gi nga xam ni jël nañ ci ruuxu sayidina muhammad sëñ Babacar moo bind de dama ko copier pour bañ rek kenn defu ñu ne Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ndax defal nañ ko guddi gi mu faato ñu ne déedéet kenn defu ko mu ne ngeen bëgg ko defal Cheikh Alhaji mali mu ne ndax Alhaji Omarul Fuutiyu ndax bi mu demee guddee màggal nañu ko te Alhaji Alhaji Omarul Fuutiyu mooy Cheikh sëriñu Cheikh Alhaji mali ndax def nañu ko mu ne wa ma la yajri bihi amalu qawmi wa rijali dalikum lam yuwafiq ما ذكر ونحن لسنا من القوم ولا من الرجال كالحاصل يا أولي الباب الله يفتح لنا ولكم من الخيرات الباب فردوا جميعا ما تريدون من ذلك دل لين جار لين تانكم مكني تنجن باي لولو بوم في أمان لورجي أخلو من سرم بابك كون نم سرم بابك دم دم يدم مبين لولو بند بافي لكن كن منتو كو يدي جماعة الحق يسكن جانب يسكن السادة جئتك طالبا من الوصول إلى حضرة الرحمن قال جلس تقبل كثير لك وخليفتنا نازت عنده أمتي وزمامي وسوق ذكركم بكل أماني شيخ محمد الأبي ابن نانا يومي زمامتي أوصاك والدنا الكريم المرتضى في كل سر باطن بدماني وخليفة للأحمدين ومالك للحلم والأسرار والعرفان لما قصدنا بعده وتحيران فشفيتنا بالحق يا صمدا جرجف جرجف جرجف جزاكم الله خيرا جرجف جرجف jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar nee na même bu fekkoon ni loolu defal nañ ko Seydina Muhammad defal ko Seydina Cheikh defal ko Omar Fouti yi sëñ Babacar nee na hum saadatuhu ay sangam lañu kon moom bu fi nekkoon dana ko bañ kon nag fa mu fa mu balle woon fa ndox ma doon balle dem leen ngeen fatt ko bu leen ko génneeti mu ne min xaysu ma nabaa wala tafaaluhu abadan لأن ذلك بعدما مضى ما مضى حين انتقاله ومن قدومه المبارك يشبه عادة المشركين لأن آلي آلي مشرك مشرك من يدفلون المصريين ينكون مثل من يقول نعوذ بالله فهل رأيتم يا إخواننا في الإسلام أحدا انتقل من دار الفناء إلى دار البناء بقى تطبخ له الأطنة نخمت في جار دم نخ جسمين صح نجدين بالريال ولا نجدين تبال جدين جنة الفرح gisuñu ko mu ne kon nag jël leen seen kurus kenn ku nekk fa nga nekk nga toog ko ñaanal ko dana ko fekki waaye bu leen dajaloo sax di ko ñaanal ñu naan lu xew ñu naan dañuy ñaanal alaji malik nee na nit ñi def nañu loolu ba mu nekk aada boo xam ne bi dootu fi jóg te lu baaxul la mu ne an alqiyaasa maalumun indakum la yadxulu ala shariati almuhammadiya شريعة دقلوكو ولو كان الأمر كذلك لا ينزل على النبي تبارك وتكون ولو تقول علينا بعض الأقابير ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو أم كون نتشيها حاجي مالك بكن جندل بيتك بنت جوغي كون دوما مي نجد سرق نيومي تام مي شيها الحاج عبد العزيز مي كنن نجد نيوان نجد ناو تبنكو بغلي سيدا بغلي سيدا بغلي dañ ko bëggalee sëriñ Babacar moom Cheikh Alhaji Abdoul Aziz dafa taxaw bañ ni duñ ko fi defee ndax nanguñ ko woon ñun nag nit ñi fëkk nañu ba moom ñu léegi moomatuñu leen du def ci suñu jëf lu ñu moom te mënuñu ko tere xoolal mag ñeeg seen fayda tàqaliwu leen ak kenn waaye lu neexul yàlla kenn du ko fi defee bàyyi ba sa bàyyi baax na baax na baax na baax na baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf baax na baax na cheikh alxaaji na sëriñ Babacar Si radiallahu taala anhu da daan jiital soxlay mbokkam soxlay rakkam amuleen loxo am ngeen doom pare am ci ñoom kersa mënu ci siggi xool kenn pour wax ak moom ci rakkam yi bu bu toogee ak ñoom cofeel bu mu leen sopp ak teral bu mu leen teral ak wekk bu mu leen wekk da daan wax ab naa cheikh yi sama doomi sëriñ noonu la leen wooyee waaw sama doomi sëriñ du ci wax kenn sëriñ Mansour wala daf naan ko sama doomu sëriñ te sa doomu sëriñ sa sëriñ la moo tax mu wax ni ab naa cheikh alxaaj Malik moom sëriñ Babacar mooy wax الشيخ ذكورا وإناثا قول الجيجان سمي سريعين بلان جفلان تيك ميوم تي أنام بو رفك تي تيك جن بون غير جيسي دوت المام بطم سي باباكر بو ديك جي مريرك خمال نجابوت شيخ الحاج ماري لانيك موي قول موي جيجان لي ديك كادو مريرك دان لك أك ميوم بو تبس تي جاتي danaan dana texe ba ñoom ñëpp ñu am lu mu leen jox ci wàllu jëreeg lu mu mënti doon ñu ñëw ci beneen dalil Cheikh Al Hadj Malick bi nga xamee ni dem na ba feebar bi mu feebaree ba sonn te Serigne Babacar nekk Ndar wala Dakar wala Louga dafa yónnee ci Serigne Babacar bi Serigne Babacar ñëwee mu yebal ko ni ko demal jumaa ja dundali guddik see yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wuutu ca loolu wane na mi bu ma dana yewoo sëñ Babacar bi mu demee ba nga xam ne ma wuutu baayam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz toog ni baayam def mu ne xallafta demal jiit demal wuutuma ca gàmm ga demal wutuma ca gàmm ga ndax sama yaram mënu ko nga gàmmu gàmm gi سيدي عبد العزيز ني كاس لسان الحال تي جامانا بابا تاموي خالي واخا سيرين بابكر تي لسان الحال تي جامانا بابا تاموي خالي مونيكو خلقت نبوك مال جن لا مثيل له في عصره أكمل والله كان بسوء شيخ الخليفة بحر العلم والحكم حام الشريعة هادينا لخير سبل ميتت كي جند من قد جاء يسأله عن دينه لكرير واجاني وجفده موت طريق بي moo naan géej ga lépp ba mu jeex in kunta jaahilahu boo xamul kan mooy sëriñ Babacar ñëwal ci Abdul Aziz yi fasal gaaluk sharia gaaluk sharia boo ko sànnee ci géeju xaqiqa niñ la kuy capitaine ba te moo di ab tariqa moo tax sharia dafay mokk xaqiqa mokk لوكو طريقة مليرة لصويون الشريعة موتك ولا حقيقة موتك الشريعة بجير لكو طريقة نمنا أم دوم جلين يوني موتك كتي جابر ريك أم غوكو يوني تنين يوني تي يالا نك متى دارك شريعتي موي كابتن بان موي كاكو لخ كنت كي دبوكا إن شاء العزيزية فيه sëñ Abdou Aziz moo doon bind mu dem ba ca biir mu ne am na loo xam ne kenn du ko wax ci xol rek lañ koy bàyyi di ko xalaat ñu laaj ko sëñ Abdou moom xamal nga sa mbokk mi yow de laajoon nañu sa mag sëriñ Mansour ni ko xam nga ndax xam nga ayibu sëriñ Babacar mu ne sëñ Babacar li ma ko mooy xam-xam bu bari ak ragal yàlla mooy ayibam mu ne fa moom ma de xaw ma fa maa ayibuhu illa li ilahina ragal yàlla donc wa xilmi wa infaqin wa bazli nawafili lewet di joxe bari lu muy naafi la loolu daal laa ko xamal loolooy sikkam waaye boo ne jàkk ci moom boo ne jàkk ci sëñ Babacar ca mayam ga mu fàtte loola xaatam ataa yi borom may gu rëy ga boo ko ne jàkkit ci xam-xam mu fàtte loola saxbaan moo tax mu ne ko ayaa maadina alxayraati wal ajli wal huda malaadi fi daarayni abal manahidi mujaddida rasma diini fi kulli buqaatin abal mustafa almaarufi muxil awaili mu ne ko fa lawlaaka moo sëñ Babacar bu dul woon ak yow dana doy waar kon diine ji dana nekk ci loxo ku xamul dara mu foye ko waaye lànk nga si diine ji nangoo mukk ku ko faye ñu ne ko moo abdu sëñ ba sëñ Babacar lan la sàmme diine mu ne quran hadithun wa quranun wa adlun bashasha wa xilmun wa irshadun wa nafal aramil ilallahi mawlaana la teg moo tax tubaarakallaahu ñu dellu si waat ci beneen leetaram bi waa zaawiya ba di xuloo ci jiite ñu dellu si waat ci sëriñ Babacar dañu yónni sëñ kenn euh, Saïd ci moom mu wax leen ni bi anna sayyidina Saïd Nour wasala ilayna ma axina al karim Abdallahi si بيغا خامني مو نيكون رسول نيك نائب ومعه ايضا كتابكم مي عندك سين تيري الذي اوجبته ثلاثه امور نيت ندير ورا تيري ليتر بوبو مو نيب بو نيك بي موي غلط بي بو نيك بي موي خلط بي فسامحناكم لولو مام ماكو موم جيغلنا لين لي ما توني جيغلنا لين نيت ندير لين اندي بو نيك بي دا نين ما توني ديما جيغلو جيغلنا لين ندخ وال من الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مو ديس نيار mu ne bi ci def fil man qataaka waafu am ma zalamaka kon dikk naa gaa ñi àndaat ak yéen ci ndax yonent bi moo ne képp ku la dog jox ko ku la xañ jox ko mu ne <laughs> mu ne bi ci des nag moo di jàkka ji jàkka ji nag du mbirum Malik du mbirum xalifa du mbirum cheikh mbirum yàlla kon nag ki naqari gaa ñi ba mu indi coow na bàyyi jàkka ji te abal leen ko لا بد من تصفيته ولن يلقى فينا أن نسكت في أمر ما يفسد شيئا للزوايا لما نوم مكنا نطشل يا زاوية بي وأما غير ذلك فلا سبيل لنا إليه ونوصيكم ألا يطرق سمعنا مثل هذا الخبر نعني الحركة الدائمة التي لا منفعة فيها ولا ربح في الزاوية أبدا فكونوا على البال في ذلك وسلام delloo leen jàkka borom li mu ngeen jox ko ko te ngeen delloo ci seen bu ngeen bénéfice ngeen Eh, fa tabarakallahu leetaram yi bari na leetar yi bari na beneen nañu ni wat dafa jot wate mu ne ñaari carte day am ñaar mu mën nañoo demandoo da ngay sànni bi rek bàyyi bi ci des bu fekkee benn bi rek la nag denc ko bu ko sànni booba ba tey mag ñi dañu yónnee ci moom mu delloo leen nuyoo daal ni dégg naa li ngeen wax li man araadal intifaa waaye léegi dama bëgg képp koo xam ne ki bëgg ngaa jëriñu wax ya an nakuna saakitiina awaanal intixaabi nañu noppi ci oto buñ ko mënul ba mënuñu ko ñuy sànni nañ sànni carte wi te denc làmmiñ wi an yarmi alxaqiqata waxtasana allisaan nañ denc làmmiñ yi bu fekkee amuñu carte bu ñu sànni nañ toog te noppi affaire yi bari na waaye sëñ Babacar si radiallahu taala anhu rakkam yi wax nañu ci moom lu nekk sëñ Babacar liy wane ne am na xam-xam benn masala musta dikk mu delloo waaye benn asa masala musta dikkit mu tontu ci saasi danaan teg teey ni la waaw ba ñu julli tisbaar wala ba ñu julli tàkkusaan delluwaat ca biir te kat li ko laaj mu ngi fi muy tontu dana la téere nangam laaj nañ ko moo tax njàpp njàpp bokk yi war nañ ko fonk njàpp du raxas loxo galax di ko rek sëñ Babacar wax na ci njàpp ci raxas loxo rek ak yëkkati ndox jëme ci kanam xam nga man dama leen daan wax naan kuy jàpp boo raxasee loxo waratoo koo jox ko xa waroo koo jox ku la waratoo téyeloo moomul ku gàllax ndiku doo fen doo saaga doo xaste doo xuloo ku sarax ndiku doo rëy doo xeeñu sa yoon nekkul boo dee sëlmu ba téye sa kanam danga naan boo dee sëlmu ba téye sa kanam da nga naan yàlla dañ ni la nga yéene waaye danga naan yàlla dootuma xool ayiba kenn sama ayiba rek doy na boo dee masaa sam xel danga nga koy yemale ci sa tey bopp ba masaa say nopp wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna wal wal kon dootoo déglu jëw doo ci déglu fenn yooyu yëpp dafa yàq njàpp boo dee raxas sa tànk dootoo ko jëmaleel lu dul fu baax defarit mbokk wala dem liggéeyi wala dem jàkka ja waaye sëñ Babacar sëñ Babacar lu mu wax ci njàpp temps bi daf ñu ko mayoon raxas kanam lu mu ci wax ba ci jàpp say loxo yépp daf ko wax ku jàpp ba pare wat sa sikkin yooyu yëpp sëñ Babacar daf ci wax ak rajo bi ñuy dégg dégloo ci jàkka ji ku ci roy te nekk feneen yooyu yëpp wax na ci wax na it ci ñamu xale bu awul yoon waaw xale bu juddu te du doomu yoon ñay dem ca ngénte la ak ñay lekk ca lekk ga yëpp sëñ Babacar wax na ci wax na ci it ndax dana dagan ci góor mu sang jigéen wala jigéen sang góor yooyu yëpp sëñ Babacar wax na ci ndax dagan na ci góor mu jaxasoog jaambur bu jigéen yooyu wax na ci kan mooy jaambur bu jigéen it wax na ko ndax dagan na ci góor mu jox loxo jigéen it wax na ci ndax dagan na ci ku masaa lenn ci say cër dagat na mën nga jëfandikoo jawharatul kamal wala déet loolu lépp sëñ Babacar wax na ci ak koo xam ni dafa tàmbali wérd wala mu tàmbali wasifa mbooloo fekk si ko ndax dafay dog ànd ak ñoom wala nu muy def yépp sëñ Babacar wax na ci ku ñu jiitu ci wasifa it sëñ Babacar si wax na ci imam boo xam ne bi dafay tux wala muy lokk wala muy fóon yëpp sañ Babacar si wax na ci góor gu takk jabar te xamul ni dafa ëmb mu nekk ak moom ñeenti weer mu am doom wax na ci kon mbokk yi ñu taxaw fi jox sunu kilifa yi ñu defaral ñu ñu defaral ñu yàq-yàq yi ngeen baal ñu xaq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bàyyi bàyyil kii bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu sëñ Babacar si maa ngi lay nuyu di la jagleel nuyu bu sell sell sëñ Babacar si maa ngi lay la nuyu bu sell sell sëñ Babacar Sy mu ndaw maa ngi lay nuyu itam di la jàppaleel bu sell sell déglu nañ fi xam-xam bu rafet a rafet fa tabarakallah Cheikh El Hadj Malick maa ngi lay nuyu itam Malick si Malick Cissé maa ngi lay nuyu liñ fi dégg xam-xam la ku rafet fa tabarakallahu waaye du lu yéeme itam ndax ku xam xam-xamu ki ko doon wax xam ni waxu fi lu yéeme lool looloo waral ba mu demee ba ca mujj mu bëmbëstal yu bare bañ ca yegg sax faf kii fi jóge bërka démb di cheikh alxaaj abdul yàlla gërëm jëfam ngeen ko yoraloon daara ja ko yor si xalifa bi mooy ki nga xam ni moom la toxal yen bi ñu ko yenoon mu jëm ci moom wante daara ji yéena ko ci wuutu li fi génn jëm ci sëñ Babacar Sy yal na yàlla gërëm jëfam muy xalifa Ababacar Sy doomu xalifa alaaji Abdou Aziz si génnee ko fi dégtal ñu ko ku nekk xam na ni matul sax benn toq-toq ci géej ci li ñu daan dégg ci woy juram mu di ko jëme ci sëñ Babacar si fonk gi nga xam ni moom la xalifa alaaji Abdou si fonkoon sëñ Babacar si booy seet dangay gis ni doo gis ci waxam sax mu mel ni jox na cër bu mel noonu way juróom Cheikh Al Hadj Malick daf ko fonkoon fonk bu rëy rëy mel ni daf ko doxale digganteem ak way juróom def ko moom sëriñam yam ci moom bàyyi ko way jur wu mag wa sëñ Babacar feeñal na ko léegi ci waxam nee bu daan dem ñaari rakk yi ñoo koy topp topp seen sëriñ di dem ñu defoon ko sëriñ te boo gisee li mu bàyyi ci bind ni muy wonee sëñ Babacar si moom xalifa Alaaji Abdou Aziz si dangay gis ni daf ko defoon muy ki ko doon yar ci wàllu yàlla ci anam goo xam ni gi dafa jéggi dayoo te dundam feeñal na ko ba tàyyi itam ñun ñu war ci jariñoo lu bare bare bare bokk na ci loo xam ni jël na ko ci moom mooy fiiraange bu mu fiiroon fiiraange bu mu fiiroon ci wàllu tariqa ak ci wàllu sharia nit boo ko defee sa sëriñ dafay am lu tax loo ko nawee ci wàllu yàlla sëriñ ci wàllu yàlla lañ koy royee nga soxla soxla dara ci wàllu yàlla gis ku la ko ci ëppale te nga man ko am ci moom nga ñëw def ko takkandeer ci sa kanam pour roy ci moom jële ci moom dara loolu su fekkente ne dafa amul la fa nekk dootul roy toppandoo rekk lay doon te toppandoo dafa bittee lool te du jëriñ itam day mel ni pënd la balaa ëllëg dafay demaat te la muy indi itam mooy waral ba nit jël nit teg ko ne mooy royuwaayam di jéem a topp ci moom te li nga xam ne ca la jaaroon dëgg-dëgg gëstuwuloo ko ba xam ko pour roy ko ca di nga topp ci ginnaawam jékki-jékki wàcce yoon wi te doo ko yëg te koy roy topp ci moom wàcce yoon wi di nga dem a dem dem ba yegg te doo ko gis te loolu bu fekkee ne dafa dal nit ci wàllu diineem walla mu dal ko ci wàllu tarixaam ñàkk weesootul loole bokk na ci loo xam ne mën na ko misaal ci màndarga bataaxal bi nga xam ne sëñ Babacar si daf ko bindoon ci dundam boobaat léegi toll ci juróom-ñett fukki at ci ni Cheikh Al Hadj si bu ko fi kenn defal dara gannaawam daje di rey di lekk di sikkar di jàng alquran bu mu fi amee sharia nanguwu ko bu mu fi amee sëñ Babacar si daf ne loolu le turandoom ne woon du fi amee war na am tur loolu ñu bëggoon def la mag ñu bëggoon def gannaaw génn addik génn àdduna ak Maodo sëñ Babacar si ne du fi amee sëñ Babacar daf ne loola lan la war a doon naka la war a tudd loolu tontali dafay jafeñ ndax ba nga wutal ko tur tur yi muy séentu benn sharia wax ci nga ne nii la ko sharia tërale tudde ko nii wala tariqa wax ci nga ne nii la ko tërale tudde ko nii te loolu amu ci ci benn ci tariqa wala ci sharia day delluwaat kon ca tontali yaa ngi koy mën a jële ca suuratu shura muy saar wi yàlla di tuddee consultation shara am lahum shurakaau sharau lahum min addiini maa lam yavan bihi llaahu dafa mel ni dangeen am ñeneen ñu leen di yenkawal loo xam ne dañ leen koy rafetalal mel ni ci diine la bokk te bokkul ci diine boo ko seetee doo fekk fenn fu ko sharia tërale loolu moom la sëñ Babacar si feeñal ci bataaxal boobu nga xam ne moom la bind mooy mu gëm yàlla gëm yàlla rek moo mën a dox diggante nit ak seytaane ba nga mën a àgg ci sa borom dafa wone ni bu doon am ci charia dana feeñ fii li ko tàmbalee fii ba fii te amu ci fenn fu mu ci feeñ bu sukkandikukaay bi doon nekk ci tariqa dana feeñ fii wala fii te amu ci benn bu mu ci nekk kon mënul nekk lu dul ci xaaju ñetteel bi muy daje pour mbéx noos rekk lay mën doon dajale nee rey ay nag nit ñi daje toog di togg di yekk di lekk nee na loolu polo weesuwul leneen ñett yooyu la def ci bataaxal boobu la loolu nag du dara lu dul bind la te dégg nañu